dayob xam-xam ci moom daal mooy bindeef la yàllaa ko bind waaye nag ba bindeef yàlla yépp na mooy ki ci gën Sëriñ ñëw dëggal jooju wax ne fa mablaghul ilmi fiihi annahu basharun wa annahu duunahu aqlun wa afkaaru lay dayob xam-xam ci moom daal mooy mbindeef la moom du yàlla mbindeef la yàlla ko bind waaye nag ngëneelam fa yàlla darajaam fa yàlla ak màggam fa yàlla tedd ngaam fa yàlla lu xel ñaw ñaw ñaw ñaw lu xalaat xóot xóot xóot xóot munta jot dëggi dëggi dayub yonent bi sallallahu alayhi wa ci màggaay ci tedd nga ci sell ak fam toll ci boromam subhanahu wa taala <clears throat> loolu mooy wane doon gi doon kon ku ñu tànn ci fànn yépp doon ko suñu borom tànn ci biiri tànneef xoolal ay turam muhammadul mustafa muhammadul muxtaar muhammadul muntaqa muhammadul mujtaba muhammadul mu'tama gis nga juróomi tur yépp ku ñu tànn lay tekk al mustafa mooy ku ñu tànn ki al muxtaar mooy ku ñu tànn ki al muntaqa mooy ku ñu tànn ki al mujtaba mooy kuñ tànn ki al mu'tama mooy kuñ tànn ki nga gise kon juróomi tur yooyu yëpp wu ci ne eh, di firi kuñ kuñ tànn la muy teg mooy kon fañ ko tànnee moom képp lañ fa tànnee moo tax mu daa wax ne ana xiyaarun min xiyaari min xiyaar tànneef naa lu bàyyi ko ci tànneef loola bàyyi ko ci tànneef ndax yàlla dafa tànn xuraysh ci biir kinaanata tànn banu haashim ci biir xuraysh tànn ma man Moustapha ci biir banu haashim loolu mooy li Sëñ Tuubaa di wax naan ma daal daakal min afdali nnaasi mud anshaahu dul qadari nadbun karimun min karimin salilin min kiraamin xiyaarin saadatil usuri xadustufi min shiraafin ma ata ahadun minhum bi faahishatin trois anil athari musta dañ di doon ko ñu tànn bokk ci tànne ko ci ñi gën ci nit ñi diiru ba ko sun bindee mu nekk sang bu tedd bu càllaloo ci sang bu tedd boobu ta ta kooka càlloo ci sang yu tedd ñooñe càlloo ci sang soo xam ne naka jekk ñoo doonoon tànnee fi ñoo doon tànnee fi sang jamono naka jekk ñoo daan doon sang jamono la dal ci àddunaan wala ko jiitu ba ci Mustafa ku fi mas a nekk rek mooy doon sang sangu jamono muy koo xam ne kon gannaaw bu ko sun boom tànnee def ko ngeen jëmi def bind lépp ngir moom daf ko yebal ci nit ñi ngir nag mu doon yërmande ci ñoom sun boom wax ne ko ma asnaaka illaa rahmatan lil alamin yónne wuñ leen lu del ngeen nga nekk mbindeef nga nekk yërmande ci mboolem bindeef yi ak baatu bu alaalam soo ko waxee mooy àdduna sépp waaye aalam nag mu jàmm ko ne alaalamuun lil alamin ndax awaalim yi dañoo bari alamul arwaax am na alamul dunia am na alamul mulk alamul malakut alamul bashar alamul amlak alamul jinn awalim yépp nag su Moustapha yërmande la ci ñoom nga xam li ëpp ci suñu waxtaan tey ci loolu la mooy mooy yërmande jooju nga xam bokk na ci li ñu war a jànge ci bisam war ko caa roye kon nit yeeg jinne yeeg malaaka yi bahaim yépp ba ci sànqaleñ yi dox ci suuf lépp lu yàlla bind dékkook yonente bi yërmande la ci moom sallallahu alayhi wa kon nag bisam war ko kon fonk bu baax a baax baax a baax te fonk nañ ko yit nag ci ci bi gisee niñ ko niñ niñ ko màggale dañ xam ne ñëpp fonk nañ ko léegi ñëpp xam nañ fi mu toll ak dayu bi mu am ba tax waaye nag luñ ko fonk rek day mel doyut te lañ koy waajale nag mooy xol yu mooy mooy mooy xol yu sell jikko yu rafet raxas suñuy xol taataan ci yërmandi jooju nga xam ne moom la làmboo taxay na la ca gën a bari waxta waxta waxtaaneef na ko lu jiitu bis bi am ci yoo xam waxtaaneef na ko itam ca jëm bis ba ca boppam dañ ci mën a jël bind yoo xam dañ ko dañ ci mën a dund ba ren ba déwén man ko roye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ndax sunu Boroom moo nu digal nu roy ko ci ay melokaanam wax ni itam nam mel wa ma aatikum rasulu fa xudu wa ma nahikum anhu fantahu lépp li leen Moustapha indil ci ay ndigal na ngeen ko jël waaye lum mu leen tere na ngeen ko bàyyi wax defal naa leen ci moom itam royukaay wu rafet lu tax lu indi ngeen jël mooy wa ma yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa du waxe mukk bakkanam lu mu wax maa ko waxloo màgg googu nag kon bisam moo tax Sëñ Tuubaa doon di wax ne mawliduhu muazzamu mubaarakun muxtaramu taadimuhu yan xatimu ala dabi taqaddumi guddi gàmmu guddi gu ñu màggal la guddi gu ñu barkeel la guddi gu ñu wormaal la ba tax na màggal ko neena na la ci njiiti diine yi njiit yi diine yi kon jëlil na njaboot yi ndax màggal ko ñu koy màggalkat sunu texe daf cee aju su njariñal tey ëllëg aju ci moo tax Sëñ Tuubaa di wax ne taadimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati bi hisdiyaadul minnati li muxlisin muazimi nee na màggal ko màggal ko tege ci aw yoon baatu sunna foofu tekkiwul sunna bi ñu jublu baatu cosaan ba la muy tekk ndax assunna assunnat li muy teg mooy aw yoon sànna sunnatan ay ittaxadahu sabilan màggal gu tege ci aw yoon lañ ci jublu mooy màggal goo xam ne am po du ca am caaxaan du ca am jëlil naa mooy yàlla nee na màggal gu tege ci yoon nag daf nuy wommat jëminu na tey sun xiiwal la ci dolli ko waaye kay am lool nag mooy ka ko màggal te sellal ko sellal ko xam nga sun na moom bu ñu ko waxee na ñetti xeeti sunna am am na lu ñu tudde sunnatun jibiliya am lu ñu tudde sunnatun ixtisasiya am lu ñu tudde sunnatun tashriiya sunnatun jibiliya ixtisasiya digle woon kenn ku ko roy jibiliya mooy nammel ci ma bu ko doon tekk mën nga ne mooy habitude rek mooy bëgg-bëggu nit ki am na ko wax ne xaftaan rek la bëgg moom rek lay sol moom lay ñaw kii garam bu la bëgg kii palaa sàngam la la moo moo ko dàqal nga ne li nga xam mooy bëgg-bëggu nit ki ci jëmm rek loolu mooy sunnatun jibiliya comme neex nga roy ci yenn station ca na muy na muy yenn yi nga xam ne mbiri boppam la waaye nag du luñ digle sunna ixtisaasiya mooy loo xam ne dañ ko jagleel moom doo nga xam ne kenn sañu ko caa fekk lu mel ni li nga xam ne dañ ko may moom mu denc lu bari ak yeneen yu bari yoo xam ne dañ ko jagleel yooyu kenn sañu ko caa fekk sunnatun tashri'iyya nag mooy bi ñu déglee nga xam ne mooy te mooy roy ko ci da ngay yàlla la ngay jëf mu jëm ci yàlla lépp nga di ko roy ci moom ndax euh, jëf ju tegal ci sunna sun borom da ko du nangu kon loolu doon lu mat a bàyyi xel kon daal li li ëpp sol ci lu ñu war a mën a jàng ci biir bis bi mooy doon yërmande waxtaan yoo ko gën a mayu sax nekkoon waxtu yi nekkoon gën a baax a baax ci nem doon woon yërmande ci mboolem xeet bi waaye ñu roy ko ci yërmande yooji roy ko ca mboolem jikko yu tedd yi nga xam yëpp moom la ko sunu boom tagge ndax ba ko yàllay tagg taggewu ko ca taar te moo gën a taaru ñëpp taggewu ko askan te moo gën ñëpp askan waaye la mu ko tagg mooy jikko kon jikko mooy li am solo mooy li tax itam jullit nit ki mën a tiim lay lay la nit di gënee moroomam ci jikko lay doon te la ci te la nag mooy ragal yàlla subhaanahu wa taala te mottal te di jikko yi moo tax ñu yónni ko ndax in ma ne sunu doon dafa maa yónnee ngir ma mottalesi jikko yu rafet yi kon nañ ko nañ ci jànge kon bu baax a baax a baax ci màggalu guddi gi jikkoom yu tedd yooya rawatina nag yërmande ñëw kon ci xutba bi imaam war a jàng ci kanam tuuti incha allah eh, xutba bu njëkk dafa tàmbali ci sant yàlla yàlla mi nga xam ne mooy soppax di ko ci mbir yi mooy seetantal mbir yi moom mi nga xam ne mooy wëlbati dogal yi ca nam ko sobe kiy def lim bëgg te lépp tege ci machi am ci ci ci ci coobareem ak tànnuk boppam yàlla lépp ci coobareem la ko defe ne noo ngi seere na yàlla rekk yàlla kenn du moom kenn bokk tam nguuram gi dara mooy alwaahidul kaxaar mooy kenn ki lépp ak ñëpp di seere ni itam yonent bi salaa ci ak leeram la gépp leer bàyyi ko leer gu mën a doon rek ci leer Mustafa la jóge leeru jant beeg leeru weer weeg luy leer lu nekk leer ga ma nga bàyyi ko ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey julli ci ñooñu ak saxaabaam ay ay ay ay ñooñam yi nga xam ne dañoo laab ak saxaabaam yi nga xam ne waaye tedd lañu di ay tànneef di ñu baax mu ne gannaaw loolu nag yéen nit ñi lii day mooy seen weer yu ñuy wax rabia weeru gàmm weer wi nga xam ne ci la ngeen jaa teddi aji ràmm ci la feeñe woon jamono ci kaw suuf mu ne kon na ngeen xam darajay weer wi na ko jéem a xam na xam dara darajay weer wii ngeen nekk te ngeen itam xam barkeem barke weer wi aku yiwam ci di jëf mana di màng ay jëf yu baax xam ne moom la weer wi làmboo màng jëf yu baax te ngeen am kersa ci yàlla na ngeen am kersa ci seen borom ci di ko mooy wala ngeen di ay ndigalam ndax sunu borom moom ikat daf leen defal xéewal ci weer wii xéewal gam leen ci defal mooy feeñal gim ci feeñal ki nga xam ne mooy ngeen mooy def gim leen def def gim leen def ci barkeb ki fi ki ci feeñ ngeen nekk xeet bi gën ci xeet yi neen xéewal gam leen defal ci weer wi mooy ci barkeb kii ci feeñ tax na mu def leen ngeen doon xeet wi gën ci xeet yi na ngeen xam ne yéen a jiitu ñëpp de donte yéen a mujj ñëw yéen a jiitu donte yéen a mujj ñëw ñi fi jiitu woon kuntum xayru ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkari wa tuminuuna billah suñu doon nee ne yéen yéen yéen xeet wi gën ci xeet yi ñu tànn leen ci biir nit ñi ndax da ngeen di digle lu baax da ngeen di tere lu bon dangeen ngeen làmboo imaan mooy da gëm yàlla gëm gëm gu wér kon weer wi nag kon ci la ki nga xam ne maanaam kii ci feeñ mooy ki nga xam ne bu du woon ak moom dëgg du sax bu du woon ak moom mbenn mbindeef doom bu du woon ak leeram genn leer doom kon àddina day lëndëm këris bu du woon ak moom itam déefal jàmm yàlla mi nga xam ne mooy kenn ki not lépp ak ñëpp kon loolu mooy xutba bu njëkk bi xutbu ñaareel bi gannaaw dafa sant yàlla yitam ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo teral alul baytil kiram mooy njaboot yoon yoon saa moo leen teral ci askan wu teey wu laab may leen di itam cosaan lu lu leer nañ lu feeñ tey julee ko sëlmal ci ki Seydina Musaa mi nga xam ne mooy aji digle ji di aji tere ji ndax moom la ko suñu Boroom jox ndigal ci wax ji wax ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu na ngeen ngoy ci buumu yàlla gi di alxuraan yéen ñépp te bañ di teqali ko mu ne gannaaw loolu nag yéen jaami yàlla yi na xam ne ki am xel mooy ki takkook ndénkaan li sun boom dénkoon ña fi fi mujj ndénkaan dénk mboolem ay jaamam wala xad wasayna alladina utu kitaab min xablikum wa iyaakumu an ittaqullaha su ba neen li li nu dénkoon warom ñi leen fi jiitoon di waroomi téere ñi lañ leen dénkoon te dénk leen ko yéen ñii fi nekkit mooy ngeen ragal yàlla kon ragal yàlla moom la yàlla dénk ña njëkk moom la dénk ñii fi mujj mu ne na ngeen jàppee ragal yàlla mu nekk seen yoon wi ngeen di doxe te jàppee ragal yàlla mooy seen bitig bi ngeen di yaxantoo tey jëfal bis ba nga xam ne nag buñ ca lu bakkan mës jëf lu nekk ci lu baax des na ko jóor ci kanamam bu dee leneen def na ko jóor ci kanamam ragal yàlla mooy yaxantukaayu ñi taxe ñëpp ragal yàlla mooy dayob xéewalug ñi ñi jege yàlla te taxaw temb ci ndigal yàlla yi te duñ teqali ko ak ña nga xam ne dañuy sàkkoo jegandi yàlla waxtu nekk te di ko jaamu te jaamu gu ñu jaa jaam yàlla amul lenn luy dox seen diggante ak moom amul leen luy dox seen diggante seen son wa taala ba ba ba tàggale na moom amul leen di luy dox seen diggante ak farlu ci jaamu yàlla su demee ba fa gën a nelaw gën a neex diggu gudd gën a neex foofee la ñoom la ñuy eh, toog nag ci seeni der di jàkkaarloo seen boroom di ko jaamu di ko ñaan ngir ragal mbugalum ëllëg ak yaakaar yéen ma ndéem la leen yàlla wërsëgal yi itam ñu di ko defaat yow yoonam tatajaafaa junubuhum anil madaaji' yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun mu tëju ko nag ñaan ne yosun boom yàlla nag nu jariñ ci ñu sopp leen ñoom ñu baax ñoo ñi ak sopp ahlul baytil kiram mu njabootu yoon saasam ak ak askanam ak taxaw temm ci li nu war ci ñoom ci màggal ak worma te nag bëgg leen bëgg yont bi ak ñi aju ci moom ñi ñi mbokkal bëgg leen farata la ju sax ju dëgër ci jëmm ju nekk waaye ab sart la itam ci wérug ngëm yàlla nit ki ngëmam mënta sax te bëggut yoon saasam bëggut alul bayti mu ne yàlla na yàlla jéggal te jéggal leen kon yàlla sunu ba mboole dimbale mboole defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa nag nu sunu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an laa ashhadu anna muhammadan rasulullah الحمد لله مدبر الأمور ومصرف الأقدار الفاعل لما يريد بمحض المشيئة والاختيار نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله الذي بنوره أشرقت الأنوار صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحابته الكرام البررة الأخيار أما بعد فيا أيها الناس هذا شهركم ربيع الذي بدا فيه للوجود أكرم شفيع فاعرفوا رحمكم الله لشهركم هذا قدره قدره واغتنموا بالعمل الصالح بركته وخيره واستحيوا من الله أن تعصوه أو تخالفوا أمره فإنه من عليكم فيه بنبيكم الذي kuntum bihi afdalal umam wa sabaqtum bihi wa in taaxartum man salafa minhum wa taqaddam qaala taala kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهذا الشهر برز فيه للوجود نبي لولاه ما تحققت الحقائق ولا وجد شيء من الخلائق ولولا نوره ما أشرقت الأنوار ولا عبد الواحد القهار الحمد لله الذي أكرم آل البيت الشريف بالنسب الطيب الطاهر وحباهم بالحسب الواضح الظاهر والصلاة والسلام على سيدنا qawlihi taala waatasimu bixablillahi jamian wala tafarraqu amma bacdu fa ya cibaad allah in alcaaqila man iltazama alwasiyata allati wasa biha subhanahu jamica cibaadihi فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتخذوا التقوى مسلكا ومتجرا وعملا ليوم تجد فيه كل نفس ما عملت من خير مهضرا فتقوى الله متجر الفائزين وغاية من المقربين القائمين بأمر الله لا يفارقون الذين يتقربون إلى الله wa yata'abbaduun laa yaqta'uhum an mawlaahum qaati' wa laa yamna'uhum min al-jiddi fi al-ibaadati maani' تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يشركون اللهم انفعنا بمحبتهم ومحبة آل البيت الكرام والقيام بما يجب لهم من التعظيم والاحترام مع أن محبتهم فرض أكيد على الأعيان وشرط في صحة الإيمان يغفر الله لنا ولكم آمين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 akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله خهاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 allahu akbar sami allah rabbana walaka alhamd allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar asalaamaaleykum. asalaam.